yaay ji mooy féete ci kër gi di toggal waa kër gi di yar gone yi di ñëwaat seen yére di sonn ci ñoom lool léeg-léeg sax doom yi ak njaboot gi tax moom du nelaw moo leen toppatoo ba ñu set tëral leen di xalaatam nu muy def ba seen ëllëg jub aw yoon aljaddaani bu ñëw nag ci yaari maam ya lil waalidayni ñeel na ñaari waajur ya waalidaani ñaari waajur yu sàmmayaani yooyu def na leen tudde bin nisbati ci askan maanaam ci boo dee seet lil awlaadi jëm ca doom ya jaddayni yaari maam innahuma naka ñoom ñaar al jaddatu mooy maam mu jigéen wal jaddu ak maam mu góor sa ñaari waajur ñoom it am nañ ñaari waajur ne yow léegi nag ñaar ñooñu nga xam ne ñoo jur sa ñaari waajur yi bu dee ci yow ay maam lañ ñu tudd ku góor ka di sa maam mu góor ku jigéen ka di sa maam mu jigéen aljaddaani yaari maam ya yuhibbaani danañu sopp alxafadata sët ya kasiran lool yuxaafisaani danañu sàmmonte alayhim ci ñoom min xadabil walidayni ci merum ñaari waajur ya yaari maam yu góor yi dañuy faral sopp lool seeni sët bu ndey xale bi mbaa yaayu xale bi jógee sax bëgg a dóor gone gi li ci ëpp maam góor ma mbaa maam mu jigéen ma mooy taxaw temm ne ko doo ko dóor aljaddatu maam mu jigéen ma tax kii dana nettali alxisa sa ay lépp lil ëbb naa ñeel doom yu góor ya wala xafadati ak sët ya maam mu jigéen mi dana faral léebal sët yi moo xam sët yu góor yaa moo xam yu jigéen yaa alxumoomatu lii mooy ay baaya tax wala xuóolatu ak ay nijaay axul waalidi mbokkum baay yu sàmma def na ko tudde xamman baaya tax muy baay bu ndaw wa uxtuhoo mbokkum mu jigéen tu sàmma def na ko tudde xammatan bàjjen axul waalidati mbokk mu góorum yaay yu sàmma def na ko tudde xaalan nijaay wa uxtuhaa mbokkum mu jigéenam tu sàmma def na ko tudde xaalatan ndey tax mooy ndey ju ndaw dane ki nga xam ne daa bokk ak sa baay tey góor boole ca dañ koy wax sa baay bu ndaw alhammu ki bokk ak sa baay tey jigéen nag ñu tudde ko bàjjen alhammatu ki bokk ak sa yaay tey góor ñu tudde ko nijaay muy alxaalu ki bokk ak sa yaay tey jigéen nag ñu tudde ko alxaalatu ndey ju ndaw al ahlu lii moo di ñoñ ña al judoodu maam yu góor ya wal amaamu ak baaya tax ya wal axwaalu ak nijaay ya wa awlaaduhum ak seeni doom yu sàmmaw na def na leen tudde ahlan ñoñ mu ne nag boo boolee say maam ak say baay yu ndaw ak say nijaay ak seeni doom boo boolee ñooñu ñoom lañu tudde al ahlu ñoñ muy sa waa kër ña nga bokkal xëy na daa tudd rek góor ñi waaye bàjjen ak ndey ju ndaw yépp war naa dugg ci biir mu jàll si ci arrifaaxu ay àndandoo yes kunu dana dëkkee xurba bu yooti naa ci wetu sunuy kër jiiraanu ay dëkkandoo nal xabu dana nu fo maxa ab naa ihim ànd seeni doom yusbihoona danañu xëy rifaaqanaa di sunuy camarade nadhabu danañu dem maxan mboole sunu mooy maxan nu ànd rek ilal madrasati jëm école na aychu danañu dund maxa talaamiis yi ànd ak élèves ya taxta saqfin ci ron palafon ci ron ab xadd rek waahid bu di benn yusbihuna danañu xey rifaqana di suñuy camarade nuhibbuhum dana nu leen sopp ka ikhwanina niki suñuy mbokk day ñëw ci ay àndandoo mu ne day am kër yoo xam ne dañuy dend rek kër gi nga dëkkee kër yooyu nag ñoo di seeni dëkkandoo nga xam ne seeni doom ñoom dëkkandoo yooyu kër yi jege seeni doom ñooy faral di ànd di dem école di ànd di fo bu dee ci genn kër gi sax mën nañoo nekk ci bokk benn néeg boo xam ne ca la ñuy nekk ba tey sax kër yi mën naa jege kër gu ne am ñu cay bàyyikoo ci ay gone ñu tase nag di dem école di fo ñooñu ñooñu ñoo tudd ay àndandoo ndax dañu mujj mel ne say mbokk arrafiqu àndaale man mooy ki nga xam ne noom day dana nu wéyal te dana nu jeexal awqaatanaa suñuy waxtu maa xoo ànd ak moom nal xabbu dana nu fo wa natanasahu te nuy féexlu wa nadrusu te nuy jàng asadiqu xarit nag man mooy ki nga xam ne nas duquhoo dana nu ko dëggalal fi axbaarina ci suñuy xibaar wa xawaatifina ak suñuy sentiment nubaajiluhu dana nu joxlanteeg moom almahabata cofeel ga ashadidata ga aji tar nata àll mu dana nu metitlu li alamihi ngir aw metitam nafraxu dana nu bég li faraxihi ngir mbégteem yaxfazu dana wattu asrarana suñuy secret najiduhu dana nu ko fekk amaamana ci suñu kanam fi shadaidi ca tartar ya wal masaayib ak musiba ya àndaale àggagul ci xarit waaye mën naa dem ba soppiku xarit àndaale mooy ki nga xam ne daal waxtu yu bare bari da nga ko di ànd ak moom ngeen di fo wala ngeen di féexlu mbaa ngeen ànd di dem école mbaa métier yi demee noonu daal loolu mooy àndaale xarit nag moom day sori ci yow nga xam ne ku nekk sori na ci moroomam lool nga xam ne bu kii amee metit kee am metit bu kee bégee kii bég kenn ku nekk ngay xam secret morom ba noppi nëbb ko doo ko wax nga xam ne kenn ku ne la muy feeñal moroom ma ci ak mbëggeel dëgg lay doon la mu koy wax itam ci ay xibaar du ko ci war dëgg lay doon ku ci nekk ci mbégte mbaa ci tartar ñoo ci yemoo rek daal di gis sa xarit mu ànd caa yow ngeen bokk ko séddoo bu dee mbégte ma bu dee naqar wa ashuur waxe bu danaa sopp waalidaya sama yaari waajur kasiiran lool wax sinu danaa rafetal mu amalatahuma seenug jëflante laa ata affafu bu ma njekki di mbasu bu ma njekki di wax mbassaa min mataalibihima ci seeni càkkuteef usux yi danaa déglu ilaa awaamirihima jëm ci seeni ndigal bihtiraamin ànd akuk ormaal uxaatibuhuma danaa wàqante ñoom ñaar bi lutfin ci ak ñewante waxibu danaa sopp juddoo di samay maam yu góor wa uxaafisu te may sàmmoonte xalaa turaasiyam ci seen ndono uxlisu danaa sellal uxlisu di asdiqaa yi ñeel samay xarit atafaqaduhum danaa leen nemmiku fi shiddati jamono tartar waraasiluhum danaa yónnenteeg ñoom ay bataaxel la daa xiyaabihim fa seenub fàddu muy seenu tukki uh seenu dinaa rafetal uh seenu muhaasharata rifaaq yi àndaaleeg samay camarade li mu yëg daal te man koo wax mooy nee na sama ñaari waajur dama leen di bëgg lool di jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet lu ñu sàkku ci man dama ci ànd ak xol bu xat di tiisloo ko mbastu déedéet suñ ma digalee ma déglu lañ may digal te fonk ndigal la ndax fonk gu ma leen fonk su ma yàqantee ñoom ndànk laay wax du ma gëddaatee ka lu koy nuru samay maami góor dama leen di sopp luñ fi bàyyi itam muy cosaan ci ñoom luñ fi bàyyi seen gannaaw rek muy ndono lu ma jële ci ñoom dama koy fonk di ko sàmm bu baax samay xarit samay xarit dama leen di sopp cofeel gu wër di leen nemmiku buñ tolloo ci tiis tiis bu ñu tukkee ba nu soree may bindanteeg ñoom samay àndandoo it damay rafetal àndaale ga jàll si ci ak taw siyam axi wa muhjatu fuaadi axi yow sama mbokk wa muhjatu fuaadi tey nagu sama xol waaye nag mën nga ne axi wa muhjata fuaadi day mel ne nga ne yaa axi wa yaa muhjata fuaadi ila Paris Faransa Paris mooy Paris rek Faransa mooy France tamhidun xaalatuka lada kitaabati risalatika ila axika li jiitu li nga lal taayale mooy wax sa tolluwaay jamono ngay bind leetar bi mu jëm ci sa mbokk ni nga xam ne moom la la mbir mi toll nu mu diise ci yow laa adri duma xam bi ayu lisaanin ci ana ban làmmiñ wa habbi mu habbiru laay waxe lakka ñeel la xamma walis li nga xam ne yu xaaliju dana jaxasoonteeg nafsi yi sama bakkan mbaa sama xel min shuhurin ci ak yëg xamiiqin kuy aji xóot naxwa shaxsika ci wàllu sa jëmm ji alkarimi ji aji tedd fa innani naka man laa axmilu duma yore alqalama estilo li aqutta ngir ma bind bi ci moom risalatan bataaxel ileeki jëm ci yow xataa tasbiqani ba dana ma jiitu du moo yi samay rongooñ ila taabiiri jëm ci wax ga wala jëm ci leeral ga xamma walis la nga xam ne yaa jiisu dana fuur dana fuur jaasha fuur na dana baawaan fii nafsi ci sama xel naxwaka ci sa wàll min xàpp fin ci ñewante wa mahabatin ak cofeel dane ko xawma daal li ma yëg ci sama biir ci yëgeel gu xóotu xóot sama diggante yow li ma ci yëg xawma wan làmmiñ laa koy leerale bañ man koo xam ndax àgg na foo xam ne du aw làng du aw làmmiñ wu moo ko mën a leerale ndax su ma jëlee xalima gi sax bëgg laa bind bataaxel rek bala maa bind rek samay rongoñ tàmbalee sottiku nga xam ne rongoñ kon mooy njëkk a wax li nga xam ne moo nekk ci saa xel ci saa bakkan ci xeetu ñewante ak cofeel bu jëm si ci yow samay rongoñ day njëkkante xalima gi bëgg koo wax bala ko xalima gee wax awalan nag ar rasailu tuxafifu min alamil boodi ak xaalatu walidayka li taaxuri axika bil murasala day njëkk wax nag ay bataaxel ni mën a woyefale metitu kala sori mooy booy jot bataaxelam rek mel ne metitu teqalikoo gi day wàññiku day waxaale ci biir nag yaari waa juróom yi buñ gisee mbokk moomee ci bitti ñàkk leen a bind maanaam yéex a leen a bind am dir bu yàgg bindut ñoom ñaari waajur yi dama leen di mettee laqad kunta nekkoon nga tu xafifu di wayefal na waxan ab façon min sewxi naa ci sunu cofeel ileeki jëm ci yow bi irsaali taxaajir yi ci yónnee ay bataaxel bi suuratin ci ak anam wala ci aw melo mu tawaa silet bu aji jokkalonte amal aanam daal léegi waxad xaalafta te jiwante ngaak haadihi alqaahidata bile yoon wala bile tak tak wala bile regal al muttabahata bari buñ top fa innaka naka yow la tastatihu do man an tatasawwara nga jeñeer mablaxa shawqina dayop wala tollu wayup sunu ciofel ilek jëm ci yow wastiya ina ak tayop sunu metidlu min sunokika ci saw doxalin wa khususan rawante nak walidayka sa yaari wajur al hasizaini aji tedd dane ko na nga daan def dinu bind ay bataaxel yoo xam dañu mën a takk ne diggante dat sàngam ak dat sàngam ci ngay bind xam ni mel na rek boo jotee bataaxel ci njëlbeenu weer wi yaa ngi séentu ne bu weer yi xaajee nga jotaat beneen xam ne moom daal dañ koo defoon aada juñ mën a takk mu ne ko noonu nga defoon daan bind ci anam gu demee noonu daana wayafal metitu namel gi ak metitu gëj gi gisee fii mu nekk nag bi nga bàyyee loolu nga xam ne da nga yéex a bind lool ba kenn mënta takkati boo bindee kañ ngay bindaat doo mën a jeññeer mukk ni nga xam ne moom laa la namme doo mën a jeññeer mukk itam ni nga xamni mom la amé metit ci sa doxalin wu yees yi te mooy di yeex a bind rek rawante na itam nag xam naa ne sa ñaari waajur man laa cay mën a muñ sax man sa mbokk ñoom sa ñaari waajur duñ ko ca mën a muñ innahu naka li mbir moo di innahu naka lay mbir moo di lam yak fihima doyu leen maa la nga xam ne yu laaqiyaani danañu taseeg moom yu laaqiyaani min alamil bu'di ci metitu sori ga hatta takwiya ba nga ñaas qalbayhima seen ñaari xol bi alamit ta'akhuri ci metitu yeexe ga bil murasalati ci bindante ga moy ci yone ga ay bataaxel fa mata analan asabaka jotna la ya akhi yo sama mbokk ya akhi dane ko sa ñaari waajur moom sori nga leen sori rek te leen di metti lool lool li gën a nag metti seeni xol léegi léegi moom mel lu koy ñaas ci sawara mooy yeex gi nga yeex a bind nga xam ne na nga daan def da nga koo bàyyi léegi defatoo rek di bind balaa yàgg nga bindaat fi saasay saasa lool tax na seen xol gëna metti inna walidayka nak sa yaari waajur xala aharra nekk nañ ci lu gën a tàng minal jamri ci xal yaa xasiisi yow sama ku foor ki inna shaytaana naka saytaane yu wasiis dana jax-jaxee lahuma ñee leen ñoom ñaar kafiran lu bari min axbaarihi ci ay xibaaram ashirrirati ya àgg ci taytalu bon ashirir ñu wax am kees bon ba àgg ci bon lool lool kon min axbaari yi ci ay xibaaram ashirirati ya jéggi dayo ci ñaaw fa ya taqidaan te ñi fas ne annaka naka yow maridun aji tawat nga wa yabkiyaan te ñi jooy macha allah soob allahu yàlla lahuma ñeleen ñoom ñaar an yabkiyaa ñu jooy ko te ne ko sa ñaari waajur moom li ñu nekk fi mu toll moo gën a metti dëgg ci ay xal ñu ngi daj loo xam ne daal ci misaal mburu daju ko ci puur ba ci waxin wolof ndax mu ne ko saytaane day ñaawal seen njort ci xibaaram yu ñaaw yi moom saytaane day ñaawal seen njort di leen jax-jaxee ba ñu jàpp ni sax da ngaa tawat te di ko nëbbu ñu mujj sax di jooy jooy yoo xam ne yàlla xam na muy toll ci metti akuk jege akuk yàgg dafa waxoon fee taaniyan wasaawisu walidayka wa afkaruhuma ash-shiriratu dog ba nga wessu mo doon leral sa ñaari wajur ni seen jort di ñaawe ak xalaat yu ñaaw yi ñuy xalaat ci sa mbokk moomu dem te bindee tut nam daan bindee ñu mujj ñaaw ci moom jort taalisa nag xaalatuka ma ahlika ak tashjihuhuma ak inzaruka li axika innahu naka lay bir moo di laa yar daxuhuma du leen jàjj xanil bukaay walis jooy siwa kalimaat yi la de sama baat yi al mutam inati aji dalal xel xiinan ci ay jamono wa suraax yi ak samak xaacu al mushiji gi aji xatale axyaanan ci ay jamono walakin waaye alaysa li haadihi riwaayati ndax de di ñeel bile piyeesu théâtre min nihayatin ab yamukaay in nani naka man wa anaate man allësi maay ki nga xam ne utam inuhuma dana dalal seen xel ku la yemun ci bépp bis bittu fanaan naa maanaam mujj naa ashukku di sikki sàkka ashukku fi asbaabi taaxurika ci sababi sag yeexe bil muraasalati ci bindante wali dalik ngir loolu la ajudu duma am buddan ak jaas wala ak mën a ñàkk min an abaha ci ma teg xaddan ab limite li alaami waaliday ka ñeel metti ci sa yaari waajur fa isalam tursil ndéem yónneewoo lii ñeel ma risalatan bataaxel fi muddati xamsati ayaamin ci diirub juróomi fan sa atiru xalsat nama dugg avion ileeki jëm ci yow sa atiru taara naaw na ci la bàyyi ko dane ko sa ñaari waajur yi li leen di tee jooy mbaa lay wàññi seeni jooy rek mooy baat yi nga xam ne moom laa leen di wax di ko dalale seen xel ak xaaju yuuxu yi may yuuxu ci ay jamono yu bare bari ñu mujj sax dañ ma yërëm ba fàtte seen bopp loolu rek yuuxu yi ma yuuxu man ci saa bopp ndax nam la ak yeex nga yeex bind day mujj ñoom ñu yërëm ma ci ba fàtte seen bopp bàyyi seeni jooy ndax di ma yërëm mu ne ko nag waaw xanaa mbir mii war naa am nag fu yam riwaay day firi piyeesu théâtre maanaam lii daa nuru théâtre mbir mu yéeme ba tax mu naa ko xanaa lii war naa am nag fu yam am déet ne ko man mi nga xam ne bis bu nekk maay dalal seen xel ñoom sa ñaari waajur yi man ci saa bopp dama mujj sax nag amu wóoloo dikku lool ci lu tax nga yéex bind nii léegi loolu moo tax nag àgg nañ daal ci sa ñaari waajur li ñu yëg ci metit moom faw ma seet nu ma ko jeexale su fekkee ne daal am na juróom fan te bindoo leetar bañ xam ne yow mi jàmm rek moo la jot kon danaa jël avion rek ñëw seet si la an nihayatu nag ak intizaarul axbaari at tayiba ak xadamul muaqabati li mujj nag mooy di néggandiku ay xibaar yu neex bàyyi ko ci sa mbokk moomu ak it ñàkk koo jàppe rek dara ci loolu mu def wa fi intizaaril axbaari ci néggandiku xibaar ya ak tayibat yi aji teey xan ka bàyyi ko ci yow atlubu maa ngi sàkku illallah jëm ci yàlla an takkoona nga nekk xalaa ahsani ma yëkkoonu ci gën jaa rafet yi la mën a am mina sixati ci wér wal xaafiyati ak jàmm waslam yàlla na nga mucc li axika ñeel sa mbokk mi ëllës yi mi nga xam ne yuhibbuka na la sopp min aamaaqi qalbihi ci xóot-xóoti xolam wa taqabbal te nangul nag qubala waalidayka fóoni siyaari waajur alxasi nay nii aji jàq qubal jamhu qubalatin bii fi ak fóon la dane ko nag ci di nëggandiku nga bind ba ñu xam ci loo nekk te yaakaar naa jàmm rek lay doon buñ jotee sa mbind it lu neex rek lañ cay xame lañ cay xame ci yow ci biir loolu maa ngi ñaan yàlla mu may la nga amee wér yaram nga féete kaw ci wéri yaram yi ak jàmm ja féete kaw ci xeeti jàmm yi yal na la fi yàlla bàyyi nga nekkal ma fi ànd ak mucc ak jàmm ndax sa nekk fi ànd ak mucc ak jàmm moom rek ma jik kon yal na fi yàlla bàyyi nga ànd ak mucc ak jàmm nekkal ma fi man sa mbokk mi nga xam ne dalaa sopp ci xóot-xóoti xolam mooy cofeel gu wóor a wóor ci moom nangoon nag fóon yi nga xam ne moom la la sa ñaari waajur yi di fóon tasewu leen sax waaye ñi ngi mépp ñi ngi mépp seeni fóon jëm si ci yow te ànd ak metti lool ci gëje bu metti bi ar rasailu ay leetar mata naktubu kañ la ñuy bind ar rasailu ay leetar naktubu danañu bind ar rasailu leetar ya mata taxaddarat saa yu gàntalee maanaam saa yu mënta am al muqaabalatu jàkkaarloo ga xindama yakkoonu saa yoo xam dafa nekk asax su jëmm ja ëllësi ja nga xam ne nuriidu dana nu bëgg mu xaatabatahoo wàqanteeg moom baa ngi dan di aji sori xam naa walis nun daa njëkk a laajte kañ la ñuy bind ay bataaxel tontu li mooy su fekkee ne jàkkaarloo jëmm ak jëmm jàppandiwut mel ne jëmm jin bëgg a waxanteel dafa noo sori looloy tax nuy bind bataaxel jëmali ci moom fi ayati munasabatin ana ci ban occasion nakkutubu la ñuy bind ar rasaila bataaxel ya nakkutubu danañu bind ar risalata bataaxel lil ixbaari ngir xibaar xan axwaalina walis sunuy mbir walil istifsaari ak walis laajte xan axwaali ahlina walis mbiri sunu ñooñ wa asdiqaaina ak sunuy xarit daa njëkk laajte lan mooy xew ba tax nuy bind ay bataaxel tontu li mooy daanu bind bataaxel ngir xamle sunu mbiri bopp maanaam mel ni loo bëgg kenn xam ko ci yow tax nga bind ko leetar di ko ko ci xamal maanaam itam nga bind leetar ngir bëgg xam lu aju ci ña nga bokkal ñuy sa ñoñ ñuy say waa kër mbaa bokk loo bëgg xam ci say xarit mën naa tax nga bind di ko laajte lil istifsaari ak ngir laajte xan sixati maridin walis wérub aji tawat lil ixtidaari ak ngir dogal ngant mooy balu xan talbiyati talabin walis wuyu ab damaan li daawatil ahli ak ngir invité ñoñ ña ila xudoori faraxin jëm ci teewe mbégte aw taraxin wala aw tiis li taxani ati ak ngir ndokkeel bi munasabati najaaxin ci occasion bu at mi fimtihaanin ci examen aw xawdatin wala ñibbisi min safarin bàyyi ko ci tukki aw iqbaali aydin wala dëgmal sig xiit awil iqdaami wala ngir jublu ga mooy jëm ga rek aqdama jëm na kanam lay firi daañ ko firee song nag léeg-léeg xalaa zifaafin ci ak céet zaf fa togg na séet ba ci la bàyyi ko bi ñuy xaflatu sifaaf mooy xewu céet awin najaati wala mucc min makruhin ci lu ñu sib mel ne musiba aw shifaay wala ak saafaraw maanaam mel ne wér min maradin ci tawat awil fawsi wala am bi tarxiyatin ci ak yëkkati garaat mooy tarqiya bi fi ak yéegal rek jëme kaw awil xusooli wala ngir am xalaa inxaamin ci ak xéewle karimin guy aji tedd li waral ñuy bind bataaxel moom daa bari maanaam nga bind bataaxel ngir di laaj ku tawatoon nu mu def ca tawat ja wala am damaan buñ doon damaan ci yow te jàpp ni wut nga bind nag di balu kooko di wane sa ngànt ne su ma sañoon li nga bëgg am waaye nanga ma tax ba tey daañu bind bataaxel ngir bëgg sa waa kër ñëw ci maanaam say mbokk ñëw ci xew mbégte wala xewu tiis ni ki yëgle xibaar bu tiis mel ne yëgle ku faat ndax bëgg ñi ko war a yëg yëg ko ba ñëw daañu bind leetar tam ngir ku am occasion bu neex mel ne ku doon def examen te jàll am ca ndam wala